asalaamaaleykum ah, suñu mbokku téléspectateurs yi maa ngi yëkkati kàddu di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax rek ni tey dañu amoon un grand événement événement bi lan la mooy le président de la république son excellence euh, monsieur Macky Sall ñëwoon doon jaale si Baba Diaw mu nekk loo xam ne lu rëy la. Euh, tay képp ku Cees waa képp koo xam ne rek wax dëgg yàlla doomi réew mi nga am nga sentiment de satisfaction ci geste bi nga xam ne moom la président Macky Sall def à l'endroit de Baba Diaw Baba Diaw nag Ablaye Diaw ñu gën ko xam ci turul woowu euh, nekk koo xam ne c'est un patriote c'est un Thiessois de valeur c'est un Sénégalais de valeur koo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp a ko naw ñëpp a ko respecté ndax jàmbaaram ak lu baax li nga xam ne mu koy def ci réew mi kon président bu Baba Diaw ñàkkee woy juróom mu def mu yebale délégation bu ministre de l'intérieur Giteko, ko doy mu yabalat premier ministre mu ñew jaale ci doy tay mu def déplacement cela veut dire encore une fois que tekna Baba Diaw place am mais Baba yi tay bo dégloo li mu wax na ni tay mbégte gi mu am su ko am ndax président li mu ko defal defal na ko lu rëy rëy donc loolu nekk loo xam ne tey képp kuy Cees waa képp kuy soppee président de la république képp koo xam ne rek doomi dëkk bi nga am nga ci mbégte contentement président ñëw kilifa diine yi ñëw kilifa aada yi ñëw ñëpp def placement tey man naa wax ne Sénégal ñoo daje woon kër euh, Baba Diaw mais aussi li ñu ci mën a remarqué leneen loo xam ne nekk na satisfaction mooy à l'endroit du général de la poste tey ñëpp d'accord nañu Euh, la position du directeur général Sirédia ñëpp d'accord accord nañu ne tey lui le choix des Thiessois ñëpp xam nañ ni ci département qui ci élection euh, législative yi weesu il était la tête de liste bi nga xam ne moom la mu am euh, succès boo xam succès bu ñëpp d' accord la tey ji ñu jëm ci élection présidentielle Thiessois yi am ci moom yaakaar mais tey encore une fois taxaw na taxawaayu jullit ndax tey ba président di ñëw di ñëw zone bi nga xam ne moom la foofu la Siré Dia dafa joxe instruction ne ay militant am nañu ànd ak yar nañu ànd ak teggin ñëw teeru ko ki nga son excellence le chef de l'État monsieur Macky Sall kon tey Siré encore une fois il a eu une victoire une victoire en termes de mobilisation une victoire en termes de présence une victoire pour xam ne tey ba président Macky Sall ba présenté ak ba ñuy wax di gërëm euh, Siré Dia bokk na ci nga tëbu ko kenn mënu ko woon ndax tout simplement ña fa toogal ñëpp d'accord ci gestes yi nga mu koy def sur le plan social di ko def ci dëkk bi di jàppale dëkk bi euh, maintenant euh, li nga xam ne mën nañ ko féliciter le DG de la Poste Siré le leader incontesté de Thiès tey booy Thiès sur le plan politique bu ñuy responsable bu crédible bu am valeur bu compétent bu social euh, oui li jàppale président Macky Sall jàppale boo avec engagement le euh, mën nañoo seede ni c'est le directeur général de la poste vraiment ñu koy félicité et enfin euh, li nga xamné moy insolite bisbi parce que da ngay dégg des fois mu am match de football mu am événement ñu ne insolite insolite tey bi man moy li nga xamné ne dal na ma sama digganteeg président Macky Sall il s'est trouvé que le président ba événement bi paré mu joggé ci chaise am di gën di dem top tapis rouge bi man dama ko talal loxo mais booba maa ngi ci ginnaaw nit ñaa ngi taxaw sama kanam garde corps yaa ngi ànd ak moom ba ma tàllali sama loxo di ko nuyu euh, garde corps yi ñëw fël sama loxo puus ma mu xool ma xàmme ma daal di taxaw tàllaat ma loxoom ma jël sama loxo jox ko ko loolu qu'est-ce que cela veut dire cela veut yow mi may jox loxo xàmmee naa la effectivement parce que soleil levant laa nekk effectivement parce que nag nekkoon na ministre de l' di jàppale soleil levant nekkoon na premier ministre di jàppale soleil levant nekk euh, président assemblée nationale jàppale ñu ci tournage boobu ñu doon def muy Mor député donc loolu fàttewu ko recevoir nañu këram ñu waa Soleil Levant yëkkati teraanga ju bëri jàppale ñu ko loolu yàgg na mais loolu mu su ko fàttee keroog ba mu ñëwee di def inauguration Kirène ma taxaw ci camion sonorisation mu nekk ci otoom nit ñi di ko tàllal loxo ba ma seen def ma loxo ma président talal na loxo ma ne ko du loo ne euh, invention la wala quoi que ce soit mais tey encore une fois mu taxaw devant la rigueur du protocole mu taxaw talal ma loxo ma ma ma talal ko loxo nit ñi brisé sama mu taxaw encore une fois ma ñëw nuyu ko mu ne ma mon artiste je te félicite ma ne ko nag wax dëgg yàlla président vous me félicitez mais tey jii maa wax ni je suis derrière le directeur général Siré Dia tey tax na namatuma dara maa lay ñaanal yàlla la yàlla may deuxième mandat mu ne ma merci beaucoup donc loolu kuñ ko defal ku ne lu rëy la lu rëy la encore une fois ndax artiste di nga génn ci mbedd ay maire xàmmee la ay xale xàmmee la jaar ci sa tur mais lu toll ni la le premier magistrat du pays muy son excellence le président de tous les sénégalais le gardien de la constitution le président de l'espoir le président bi nga xam ne tey fi def kenn dans l'histoire du Sénégal bu taxawee xàmmee la ràññee la talal, loxo boo dee góor war nga content. war nga mais aussi ñi nga xam ne nga àndal sa famille politique war nañoo bëgg war nañoo kontaan léegi mon koy wax président de la république que taxaw naa man Samba Ndiaye lu tax ci C'est sama directeur général Siré Dia fas fépp foo xam projet la def na ko ci réew mi dinaa taxaw fësal liggéeyam naa dajale ay artiste comédien yu mel ni man ñu dajaloo fas def caravane fësal président de la république dem seeti ki nga xam caravane fësal réalisation président de la république ma ànd ci ay artiste comédien yu may tànn xam naa ne géej teranga dina nekk ànd ceeg man ñu wër ay oto dugg fépp foo xam ne def na projet ñu théâtre ko nit ñi gis ko parce que nag vraiment Euh, euh, li mu def wax dëgg yàlla xanaa ku gëm moo ko dul gis waaye ku yeewoo ci réew mi euh, di di nga gis nga li nga xam ne moom la président def loolu yëpp bu ma koy def ma koy def ci ndigalu ki nga xam ne mooy le directeur général de la poste loolu daal laa waxoon muy information boo xam ne à chaud moom laa waxoon naa ñëw wax si ko fii ci kër gi nga xam ne muy prestige nee naa leen li tax ma naw prestige mooy ils sont prestigieux li tax ma naw prestige c'est des hommes de prestige ils donnent de l'information prestigieuse et ñu koy déglu ils aiment le prestige moo tax prestige vraiment euh, fa tabaarakalla ca kaw ca kanam